borom baax la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 ak jullit mënta tànnal boppam lu ko gën comme moo nu tànnal ñuy nuyoo asalaamu aleykum bu ngeen seetloo saa bu nuy wax dañ leen di fàttali nuyoo boobu ni mu amee doole ci sunu waxtaan yépp ndax moom la jullit di tàmbaleek moroom mi buy tàggoog moom tàggoog moom noonu ndax suñ borom tënk ko foofu lu mënta ñàkk ci nit la wax nañ ko yoon

top giñ top l'islam top giñ top sering, top giñ top Ken Cheikh Ibra kenn kenn ku ci jublu dara ludul baga am jammi aduna ak alaaxira am loolu rek la ñëpp di wut sëriñ bi tamit na ñëpp xamne ne loolu la ñëpp ànd ak mom bëgg yalla jammal ñu ci suñu xel ndax dafa bok ci li nga xamne dinañ ci sanni ay moy xel ni mu gaawé ak ni mu ak ni mu naqaree sëriñ bi bokk na ci ñi nga xam ne dañuy defar xelu nit ba nit ki am xelam mën koo jëmi ci borom sëriñ Tuubaa bokk na ci ñi nga xam ne leen toppee te topp leen ni nga leen war a day defar sa xol euh, xol boo gisee arab di ko woowee xalbu li mu du toog benn place moo yaram yëpp di nga gis mu ne tekk waaye xol moom danaan tëf tëf tëf tëf rek di yëngatu te su noppee yëngatu xamal ne lépp jeex na xol boobu loolu tax ñu tudde ko xal bu ci arab li muy wëlbatiku moo tax bu ko defee foofu nga koy gis lu naqaree téye la waaw kon noo ngi leen di sant bu baax a baax di gërëm ñépp ci teewaay bi kilifa yi fi teew lim nañ leen léegi doomi sëriñ Dame Atta mu ngi fi teew ak ay mbokkam euh, ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp euh, di leen jox taxawaay ak wàccuwaayu sëriñ bi euh, di nuyu nag sëriñ Xalifa Fall mi nga xam ne mooy doomu sëñ Modou Moustapha Fall mooy caatam moom mi toog mooy caatu sëñ Modou Moustapha Fall mi jëkk toogal Cheikh Ibra bu ko defee muy loo xamante ne waa kër sëriñ baa ngi fi ci góor ak jigéen moom itamit mu teewal fi waa kër Cheikh Ibra fi mu toll nii du doomi sëñ seex jëmb moom mi ngay gis ne du doomam du sëtam rakkam la mook sëñ Cheikh jëmb bokk benn baay kii toog mook sëñ Cheikh Fall baay góor ñoo bokk benn baay mook sëñ Modou Aminta Fall ñoo bokk benn baay kon defe naa ne bu fi teewee teewal na fi yoon wi yëpp rawatina nag mu fekk fi ay kilifaam danañ wax jottali nuyoo yi nga xam ne moom la joxe jëli ko Serigne Cheikh Jëmb wax ne mu ngi koy jottali mbooloom yëpp di xamle ne ñëw gi mu ñëw fii mbégte mu mag la ci moom te it lu rëy la ci moom moom moo ma ko wax léegi. te mu ngi ñaan ku fi teew sun borom faj sa aajo ci lu nëbb ak ci lu feeñ wa ma zalika ala llahi bi aziz loolu mu wax ku ne xam na ne yomb na yàlla lool kon mu ngi gërëm ñi jiite daaira bi nee na mu ngi gërëm mag ñi di gërëm jigéen ñi ci turu sëriñ muntaxa ak turu sëriñ cheikh jëmb ak turu mbacke mbacke yu baax yu fi toog ñun tam seen kaddu day duggaat rek ci biir kaddu sëñ xalifa bi ndax sëñ xalifa mën na leen a waxal ñoom ndax nituk Cheikh Ibra fu mu fekk kook sëñ Touba mën na ko jottalil ay kàddoom mën na taxaw taxawaayam ndax loolu dañ koo liggéey démb tey soog a ñëw kon noo ngi noo ngi jottali nuyoo yooyu di jottali suñu nuyoo bopp sëñ xalifa mii ngeen gis mu toog man mi bi may jébbalu ci kanamam la kii ngeen gis mu toog nii bi may jébbalu mi ngi toog <laughs> nga xam ne amul lu mu xamul ci man sama mbir ci njëlbeen la ko fekkee ba tey jii te yàlla na yàgg waaw dara ump ko ci sama doxin te it ku am ngërëmal ay magam la fi nga koy gis nii ndax dama fekke mu topp magam toppin mu rafet ba am ngërëmam kon ñoo ngi koy gërëm bu baax faal di ñaan yàlla fa guddal fanam te may ko wér euh, ci barkeb yoonu murit yépp barkeb Cheikh Muntaxa euh, li mat a wax mooy sëriñ bi fokk ñu koy fàttaliku di xam lu ko andi ci jamono ba tax mu andiwaale lii mu andiwaale lépp te kenn mënu ko matal loolu lu mat a wax la xanaa xamu leen ne sëriñ Touba am na nit ku bind benn téere boo xam ne am na ëpp na juróomi téeméeri këyit ka jëkk a baax ci lislaam ba ka mujje baax sa histoire def na ko ci daal ne waaye ñëpp ku fi mas jaar am na kuy ñëw koo xam ne xaw ma fu muy génne xaw ma ku mu doon waaye ñoom ñëpp ci biir kooku lañ ne dinaa leen wax téere bi de mu ngi tudd la waxi illa xiyaar bu imam Shahraani sëriñ Moussa Ka sax misaal nañu ko ni imam Shahraani Kamal téereem ba bàmbalee misaal giñ na ne mooy aboo rijaal xut buy woon ci xarnu bi gis nga kooku dund sëñ Touba la ca gën a néew suñ borom won na ko te fekkewul sëriñ bi mu bind lépp fii ne li ko tàmbalee bi sëñ bi feeñe ba bi mu demee ci géej gi ba bi mu dellusee bi mu demee gànnaar bi mu dem jolof lu fi sëñ Touba def bindoon na ko te booba te boobu ñëwagul sëñ bi ñëwagul xam nga loolu wér de waaw moo tax sëñ bàmba sëñ Moussa Kane hmm. téeréem ba bàmbalay misaal hmm. giñ na ne mooy abóoru jaal xut bu ñu woon ci xarnu ma ngay wax ci téere ba ay waxin yoo xam ne tey jii su fekkonte ne nekkul ci téere ab arab bind ko soo ko waxoon ñu ne kii dafay daanu te nee na moom wan nañ ko leerug sëriñ bi wan ko mooy kan mu ne am na ñu koy topp déglu leen baax li ma leen di wax nee na sëriñ boobu bu ñëwee am na ñu koy day faat ñoo ñëpp te ñu ngi dund Dengen ngeen waxin wo neena ñi ëpp wu nitam ñi am ngërëmam da nga leen di gis ñu dox ni faatu nañ bu yag te ñu ngi dund mom moko wax lolu lolu ku ko xamul amna lu murid di def do xam lu tax ne sun borom xamal na ma ne innakum lan tarawna rabbukum hatta tamutu ja yonte bi waxon te degguñu ko jëm jojo koy misal yonte bi dafa du ngeen gis seen borom fekk faatuwul leen nee ñépp di xaar bés pénc ndekete am na ñuy gis seen boroom fii faatu faatu maxanaa sëñ Bay Sarr sëñ bi danañ tël mën a yàllaa ngi dégg ngeen ko xam ngeen lu tax mu daan ko wax eh, dafa faatu faatu maxanaa jëmmam nekkatul <coughs> sëñ bi noonu la daan def dala daan fekk raxas la ba nga set foot la duy la ba ngay yàllay kese mu tàggale la lépp luy caaxaan ak lu ban nga nekk ci biir nit ñi fekk yow yaa ngi sa borom nga xam ne gis nga sa borom te wa nee na loolu mooy seexal xamoon ngeen loolu waxuñu seex yi léegi de seex bu mel ni sëñ Jóob jëkki-jëkki rek ne man xéxal nañ ma biig la ma sëñ bi feeñu waxul xéxal yooyu dama bëgg nag ngeen di déglu bu baax a baax li ñuy wax ndax ñun addiisunu dañuy wax lu ñuy jariñoo ñun ñëpp yaa ngi dégg sëñ Bay Saar ku ne xam na ne moo gën a gudd fan ci yoonu murit xamoon ngeen ne dund na téeméeri at ak fanweer yu teg waaye déglu leen li ko sëñ laaj Ababacar da ngaa bëgg ñu sof la wala ñu tasar la tasar takkaat la loolu ku ko mën ci nit ku ko defe ne nit nga wala ñu lay tëkkale kenn mu ngi juum dégg jàkkaarloog nit ni ko ma sof la wala ma tas la tasar takkaat la bu la gënal sëñ Baye Sarr ne ko tas ma tasar takkaat ma mag ñi am ful la waay murit noonu lay mel murit day am fu muy toll xam nga ne ñooñu li sëriñ bi baax a baax defar nañ seen bopp ba bu waxeek ñoom ñu mën a xam fa ñuy ne te foofu la murit war a ne baaxuk sëriñ bi warta betti ab murit ab murit war na defar boppam ba baaxuk sëriñ bi bu ne bëri jëm si ci moom rek fekk mu ne fa mu war a waaw loolu mooy murit de da waajal sa bopp ba yekk sëriñ bi bu naree yekk ci yow bu ñëwee rek fekk ndab li mel na mu war a mel def la mu war a def looloo waral ñuy dajaloo nii ak di waxtaani sëriñ bi sëriñ bi ne ko kon ababakar dinañ la tas tasar takkaat la ci biir tas tasar takkaat boobu nag ci la yeewoo naan yàllaa ngi ndax sëñ bay saar ne la woon na loolu ñu bari xamul sëñ tubaa kenn du ko tëkkale kenn sëñ bay saar faatu woon na xamul ngeen loolu damay joxe exemple rek maa ngi ñëw benn exemple rek laa ci joxe ndax ndax sëriñ tubaa lim joxe ci exemple bari na te kooku ma leen di wax waxoon na loolu waxoon na loolu ci sëñ Tuubaa nee na nguurug suñ borom gi kooku bis bu ñëwee nguurug suñ borom gi amu ci fu muy yem sëñ sëñ sëñ Fallu ñu ngi wax na ko sax waaye sëñ bi bind na ko yaa maalikal mulki lii wasaxta duuna jawwan fil mulki wal malakooti dahra yàlla nee na nguurug yàlla gi ci kaw ak gi ci suuf fenn fenn fenn fenn fu ma ci mënul lu ma neex amul te kat dafa jàkkaarloog yàlla xam na ne loolu du problème mu nit ñi yàlla lay waxal waxul ak nit ñi nit ñi yéen laay waxal eh, nguurug suñu borom nii laa ci demee waxul loolu dana yaa maalikal mulk yow yàlla yow laay waxal yow yaay buuru buur yi léegi li nga ma defal laay wax lii wasaxta yaatalal nga ma duuna jawwante dootoo xatal fil mulki wal malakooti nguur yi nga am yépp ci kaw ak suuf daxara nag te amul fa mu yem waaw ñu bari xamuñu ni sëñ Mbay Saar suñuy nopp moom ak sax soxna jaara hmm? waaw dafa am murit yoo xam ne fokk ñu leen di fàttalee léegi nag kooko dafa wax ci tiir yi ba loo xam ne lu doy waar la dane al al karimul xakimul haadi na ngeen ma déglu baax li may wax al karimul xakimul haadi mu ne yàlla mi tedd bi di ko xeriñ ki di ko jub ki day jubal isa taxawale ila naas yéen ñi nit ñi maa ngi leen di laaj bu ko neexoon du jékki-jékki rek ne jaleñ ci nit ñi moom yàlla te kokkat ba mu koy wax laa la wax sëñ bi feeñagul te señ bi ñett yooyu ñetti tur yàlla loolu la ëpp lu mu defaree nit karim ñun ñëpp ci tarangam la dund dëgg la wala dund ba xoolal ñi dund ci teraanga sëñ Tuubaa niñ toll hmm? ah, te bind na ko nee na saa al ilahu annani nii mukarram xillun wa xibbun wa bihi yukarram ukarram sop na yàlla ba nopi teranga ci man la lay jexé man ma mën a teral nit néna na teranga na teraanga fii ak aduna ak barsax man mi la ko yalla jox man mii ma mën a teral doomu aadama ni mi terale nit do gis fenn mu alkarimu hakim hikma bi murid yi doxé téré yi xana xamu murit dana jang xami téré xam fiqh xam tasawuf waaye la ko sëriñ bii xamal dëgg dëgg dëgg du ne ci téere murit yi dëgg laa wax murit saadix dëgg la ko sëriñ bi xamal ñemewu ko wax ci biir nit murit yi nga gis ni am na ci ñoo xam ne buñ jógoon fii wax la lu ñu gis lu ñu leen wan ci yàlla <laughs> du xaj sa nopp du xaj sa bopp xikmatu xakim sëriñ Tuubaa tur woowu da ciy def lu ne kooku ne ñetti tur yooyu alhaadi jubbanti nit nag ak jubal ko sun borom a ko moom waaye da ko teg ci loxoom hadaani alhaadi bi jaay jeex na suñ borom da ko teg da ko jubal ci barkeb kiy jubal ba yëkkati njub teg ci loxoom li gën a jafe nag sëñ Tuubaa jubal nit lu ko yomb la sëñ Amadou Tasrif Sougou nee na ma ci kër Taala ma siyaare si doomu sëñ Jéeri Waada mu ne ma sëñ Touba nee na ma bés Ahmadou ma ne ko Mbàkke mu ne ma ñu jëkk ñu nu ñuy defa ak kuréer ma ne ko dañ lay gindi delloo la ca tàmbali ba jàngal la yee la yar la teg la ci yoon mu ne ko jàmbar lañu de waaye man man duma defe noonu ahmadu man ku ñëw ci man foo toll ci bon ci saa si foofu ngay tollu ci baax xam nga moo tax léeg ñu gis fii lu ñu jaaxal gis koo xam ne moom kañ la fi mel nii diw mii ni mu say saye woon diw mii fi mu toll woon ci mbon ak diw ni daaw laa ko gisoon ren ma gis ko mu toll ci baax foo xam ne jaaxal na ma sëñ bi ne ko xam nga lu tax may def noonu sëñ Tuubaa ko wax sëñ amul tasrif mu wax ma ko Ahmadu xam nga lu tax ma di ko def mu ne ko baax ak bon dañoo làng di dox foo toll ci baax rek foo toll ci bon rek am na bunt bu toll foofu ci baax fi saa si laa lay ubbil bunt bi rek nga duggee noonu ah boo bëggee toujours nga commencé balaa ngay léeg balaa ngay tàmbalee commencé faatu damaa toog di déglu rajo maag sëñ Cheikh Fall Baye góor rajo bi di wax ni magi kii toog benn waay ne maa ngi laaj man damaa am alal am na lopp juróom-ñetti fukki dund ci leneen nag ma ma leen di laaj ah nan laa war a def te diine moo ne ci sama xol fi nekk ni te juróom-ñetti fukki weesu naa ko te wératuma maa ngi toog ñuy déglu rajo waaja nekk fa moo tax am na kaa yoo xam ne jàngkat doog ko wax gor yalla rek nga koy wax mu fajj ko mu jeex de ngeen li waji barina wax neena mom da daa gudd fan juróom-ñetti nangai at weesu bari na alal te wiratul te l'islam da na ci xolam nek ko lu bon bon na ngay jang ay ki ci fu na nga def nangam na nga jàng nangam gën ja niw nag na nga fexe ba xam alquran ñaari saar yooyu jàng nee na mu ngi koy yee sëñ Cheikh Fall ne waxul dëgg de da ko war ni jébbalu jul te li des ci sa alal nga jox ci sëñ Touba rek <laughs> kooku nee am na alal wératul kooku nga xam ne boo demee jóg julli sax mënu nga naan ko lax dëri hmm? mu ne ko sëñ Cheikh Fall ne waxul dëgg na ko ne na jébbulu te jël alalam jox ko sëñ Tuubaa ndax li ko dese bëreet loolu rek a gaaw ci moom waaw am na kaa yoo xam ne sëriñ bi rek ci mën dara bu ko defee nag mu ne alkarimul xakimul haadi isa taxawala ila naas dama leen jox turu téere na ngeen dem ngeen xool téere ba mu ne kooku bés bu ñëwee ci nit ñi zahiruhu ak saayiram abdun min ibadillahi saalihiina lay doon nee na jàmm lay doon ci jàmm yàlla yu sell yi noonu rek ngeen koy jàpp waaye nag baatinuhu rabbun linaas wallaahi ci téere la rek mu ne kooku ngeen di gis mooy borom nit ñi maa la ko wax de man dama ci téere ba nga xool ko xam nga nit ñi téere rek gëm mu ne kooku seen boroom la demal ba wax ne zimaamul wara asri la dallaay fi yëddi wa ma rumtuhu min malikin xaadabil ani nasu bindeef yëpp mu ngi sama loxo bi te kooku waxoon na ko bu yàgg waaw bindeef yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ngi ci loxol sëñ Tuubaa te sama borom fayee na ko te moo ko bind zimaamul waraa la wax waxul zimaamul murid yi murid yi de nosu bindee fi mu ngi sama loxo daan ne muluku zamani li ulinu bila azal bi mati sujja am qaahiran lam yunaasiw ci mawaahibul ilaahiya mu ne nguur yi ngeen di gis ci jamono yëpp li des ci jamono yonent bi nee na ma ko falooti ci àdduna yaa ko fal moom moo ko bind ci mawaahibul ilaahiya man waxuma ko moo ko bind nguur yëpp ci sama loxo la tegu nit ñi dañoo war a xam lii lu xew xàmmee ko sëriñ Touba mbiram lu ci bari yàlla bind na ko Cheikh Omar Fouti yu maa ngi nettali Makka la ko sun borom wane mbirum sëñ Touba nee na mu gis ñu baree bare bare am na ci bànd yu ma ko nettali ña nga taxaw nit ñi ñuul kukk di wax kenn dégluwul sa morom mu ne sun borom ñi ñan la mu ne ko ah, seen wax ju bari ji ñooy mujjee sama mbir de maanaam mbir ci àdduna fi nga leen di gis noonu nag benn sikki la ñu am duñ dégloonte waaye nag sama mbir ci seen loxo lay mujj de ñooñu nga gis mu ne ko fuñ ne mun ne ko soowu jant daldi di ne ko seen njiit mooy Ahmadou Bamba nee keroog la jëkk dégg turu sëñ Touba eh, wala fa la njool fuuta man am naa ko ba mu jeex sëñ Moussa dafa taalif bi sëñ Touba ah, Cheikh Omar Fouti yu dikkee Mbacke di di wax nit ñi ni seigne Touba dana ñew wala fal baangi fi nga xamne ne Moussa Ka bayu ci benn bis ak lu fa Cheikh amadou Fouti yu def di wax ci wa mbacke ne mam Mor Jaara euh, euh, euh, mam Mor ante Sali ak wa keur gi ne seigne Touba dana feñ waye bu ñewé na ngeen ko wax balay nangu dara na ma jëk nangul sama njëbbal te ko nama fay yoolu xam nga nitu yàlla fa muy du bokk ak ñun na ma fay yoolu ku sukk ci kanamam dagg baatam jox ko ko àddiya ne ko ne ko noonu laa duggee ci yoonam te fekkew ko moo tax bis penc di nga gis ku sëñ Tuubaa defal loo xam ne te gisul sëñ bi xam nga boo ko waxoon tey ñu ne waa jaa ngi wax waxi dof de sëñ Tuubaa fekkewul ah, fekkewul Badar te ana nee na ana waahidun minhum kenn laa ci ñoom xam nga yàlla amul démb amul tey amul ëllëg yàlla xamul yàlla xamul lu paase xamul luy bëgg ñëw loolu nit a koy xam ndax yàlla li passé ak liy bëgg a ñëw yëpp lijjanti na ko ba noppi kooku koy xamul loolu ah temps li ñuy wax temps ak espace yàlla xamu ko lépp ngi ci loxo mu téye sëñ Samba mu baax mi da ko daan faral di wax yàlla na ko yàlla yokk leer ne yëpp daa dajandoo ci loxol yàlla yàlla amul démb amul tey amul ëllëg moo tax nga mën dégg ne ina anzalnaahu fi laylatil xadri wa ma adraka ma laylatul xadri laylatul xadri xayrun min alfi shahrin nga xam ne ay nit ñu fi jaaroon ba jàll dund juróom-ñetti fukki at yu teg di di jihaat ci yàlla suba ak ngoon yow nga di jullit ëllëg ñu fay la seenub yool te benn guddi nga màggal yàlla noonu la mbiram di doxe léegi nag ma dellusi si ka doon wax mu ne waaye nag kooku kooku ñëw noonu nekk rabbun linnaas di borom nit ñi wala yarawnahu fi hadihi al ayshiya ila man maata mawtatal maanawiya waaye waa këram yëpp ñu xam loolu nag ñi ci faatu faatu maxanaa di dund te faatu ñoo koy xam ñi mu jaarale foofu wax naa leen ci Saragossa keroog ne amna am na koo xam ne Touba ne ca gannar yow lo bëgg ma defal lako mu ne ko xam ngay kan kilifa ga ma ko wax nee ma koku mom ci suba lañ ko rob ndax ku ku demul ci yalla do xam seigne <laughs> ku demul fele mënoo ko xam hmm? moo tax yam fi nga wara yam baxna de hmm de li Cheikh yow di wax xërërër bu kat bu mag bi <laughs> nee xir baxna way na di ubi bop te lele nga gis ku waxe no xamne man amna ben benn waa yaram wetang tàng ci italy ñi waxtan ba mu mu nan jigen ñi yeen man man ngeena dem sax ba wessu mam jaaram man ko deet yow mi xer nga di li <laughs> seigne fallu Fall sa mag ju bax ja da wax nan amna ño xamne xam ne luñ baax baax bu ñu teyelon seen borom kër 100 ans sakket du tax ñu doon dara <laughs> kon yefi jema roy baax na sëñ Cheikh Fall Baye góor nag newoon na ma njagal li gën a bon ci yoonu murit ngay toppandoo sëñ Touba ma ne ko toppandoo mu ne ma waaw sëñ Touba dañ koy rey kenn du ko toppandoo boo ko toppandoo da ngay doyee di moo ma ko wax ñoo ñoo xam ñoo ñoo xam ndax sëñ bi fii ne nii boo duggoon fee rek daal di muuru ba kenn du la gis di wax ni muy waxee def ni muy def nit ñi dañ naan kii wér na ndekki Seex Ibra tur wi na li gën a gaaw mooy doonub taalib sëriñ bi loolu la soxla sëriñ bi soxlawul ku ko nur nur sëriñ bi xam nga lu mu soxla taalibe la soxla te Cheikh Rafaal jàngale na ko ba noppi Cheikh Ibra nag mboolem melo yi nga xam ne ci la nit di doone nit dëgg dëgg dëgg dëgg déglu leen li ma leen di wax waxuma nit kuy sañ seeka di toilette ko yooyu yooyu taxul nga doon nit ni nit di doone nit dëgg dëgg dëgg dëgg moom la Cheikh Ibrahima jàngale mooy nit ki dellu ca la taxoon ñu bind ko yor melokaan wi sun borom bëgg mu mel loolu mooy ak taalibe ba lu baax sosoo ba tey lu fi nit mas def ci lu baax nit ñi xamuñu ni mu ngi ci biir li Cheikh Ibrahima def taxawaayu sahabatu rasul yépp boo toppee dundam saaba bu fi ma si jaar boo toppee dundam te xam dunduk Cheikh Ibra da nga gis ne dund na dunduk saxaaba boobu Cheikh Ibra dundul dëggaluk leen loolu koo ko wax du ko weddi boo ne Cheikh Ibra dund na dëggaluk Ababacar Sadiq kenn du ko weddi hmm? njàmbaaru Seydina Omar na dund ko tabuk Seydina Ousmane nag dund ko xam-xam bu jéggi dayo boo xamante ni bi kenn xamul fu mu tàmbalee fu mu yem ci Seydina Aliou Seydina yoru ko hmm? nee na balaa ngeen doon xam ne ku sëñ Bamba am yamu maak moom ñu tëj ay armeel ba mu am téeméeri at wallaahi ko mu yar moom a ko wax Baye Cheikh Ndiama ca Touba Cheikh ibrahim ne ñu tej ay armel témir at kenn du fa sul ñu jall yax yépp ne wooma ma ñëw ne yax bu ne danaa wax fi mu féete woon ci nit wax kooku ñaataat la dund wax ndax ma nga safara wala ma nga àjjana wax koy ndeyam wax koy baayam Cheikh al Fall neen téeméeri at buñ ko tëjoon ay armel jal yax yi yax bu ne xam naa fu mu jóge <laughs> kooku kooku xam-xam bi mu yor xajul ci kaw suuf de hmm? <laughs> moo tax nañ def li wax moo ñu gën a noppal tey ak ëllëg boo bëggee doon nit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg da tënku ci melow Cheikh Ibra doon nit ku am njariñ doon nit ku jub doon nit ko am fit doon nit ko am xam-xam don nit ko xamne aduna àdduna du la fëkk sëñ Dame Abdourahmane Lo waxna waxna ci mine du baaxal xaddim sëñ Bachir wax ko sëñ Dame Abdourahmane Lo nee Cheikh ibrahim ku ma jaaxal la te neena na nak dama koy duggal ci karamat al adida yu seigne touba yi rek dafa bari keman ba ken munu ko nat neena Cheikh ibrahim Fall alazi yaqumu bi khidmati cheikh wa khidmati al muslimin kaw ko xam nak Cheikh ibrahim nee na taxawaayu Cheikh Ibra yëpp ku di jullit boo ko xamee boo ko xamul liggéeyal na la nee na ci bi liggéey bi mu liggéeyal Sëñ Tuubaa liggéeyal na ñëpp mu ne li ma jaaxal nag mooy yu bokkul fu ñu jëm ni mu ko mënee boole ba boole leen fu ñu jëm sëñ Daam Abdourahmane loo ko wax de nee na Cheikh Ibra dara seeneew ko maanaam nu nit mën a mel nee na da daan ñëw këram fekk fa ay murit yoo xam ne xanaa xamuloo ne Cheikh la ah yoroon na taalibe yu mag yoo xamante ni seen digg ak yàlla dara doxu ci woon te bañ ko gisee dañoo daanu jox ko seen bopp ñoo xam ne liñ doon xam ci yàlla wala yii sax xamuñu ko sëñ Cheikh Fall nee na ma njaga ma ne ko waaw mu ne ma xam nga bàyyi njagaloo sëñ bi xam na ko moo doon jëwriñu sëñ Cheikh Fall sëñ Cheikh ne ma Baye Matar Lo lañ ko daan woowee baay Matar Lo mu ne ma njaga nit mosuma jaaxal waaye kooku jaaxaloon na ma te taalibeeb Cheikh Ibrahima xam nga nu mu daan def da daan ngemb defe naa jot naa leen ko nettali da daan ngemb sol ay yërim ne mu sukk ci Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima ne ko Matar Lo ngemb li ngay ngemb ci biir loo ci jublu. <laughs> mu ne ko di waaj a bëri rek ku defe ne moroomam nga bu ma ko songee nekkati loolu rek a tax muy ngëm daana taxaw ay kilifa toog mu def nii loxo yi ne yéen yëpp dëkk naa leen jaay naa leen baa baa jaay naa la baa la lay wax suñu àggee ci siim te waxuma la ci diggante baag siin loo xamul ma bàyyi Cheikh Ibra doon sab nee nag baag siin ku ma fi waxtaanal diggante bi ma wax la loo xamul waaye nag am na benn bés mos naa leen ko nettali waaye nettaliwaat baax na am na waaye nag xam naa dana xaw a bàyyi faale saagaw ma nag waxuma dara na nit ñi dégg rek xam fu ñu wax ji jëm Baye Matar dafa dafa jëloon karaw gi def ko noo xam ne doy na waar gars yi nañ bàyyi ku ñu gis naan seen bopp yeeg xam nga bari na ay wax léegi te yàlla moom waxul fenn ne bopp laay fay bopp bu set ak bu kii ak bopp bu bu jaxasoog bu jaxasuwul yàlla moom xam nga lu mu wax xol ba Matar Lo dafa romb ab sëriñ sëriñ ba toog gaa yi wër ko sëñ mu nuyu sëñ ba sëñ bi ne ko xanaa Baay Faal nga mu ne ko waaw mu ne ko nag xam nga bopp set baax na ci diine demal nga raxas sa bopp bii te nga wat sa karaw gii te nga dem jaamu ji yàlla waaye xamul ki muy waxal bàyyi ma tarloo ne ko set bopp matumaa jaay de ndax dëkk boo dem sa karaa gën a set bopp te dégaa boo digg moom la ah waaw ah xam naa li muy def ci dégaa bañ juddoo ba léegi mu ngi rajaxe rek te set bopp moom moo ko gën a def ñëpp dama leen di wax ne li nga xam ne sax moom la doom aadama yi di tudd di am nuñ koy tudde di am nuñ koy tërale dama ne loolu sax nit ñi dégguñu ko li ëpp ci nit ñi dégguñu Cheikh Ibra ko dégg gis nga bu ma sañoon waxuma ko ngir dara bu ma sañoon nit ñepp dañuy maase déglu Cheikh Ibra te dégg ko fañ ko wara déglu déglu ko nañ ko wara déglu gis nga li nit ñi wax amna na ko mësa ñew ne ko dañuy défar néegu yalla moo wax na leen dañuy tabax néegu yalla ñu bëgg faal njaga nga joxé ci Cheikh Ibra ne ko luy néegu yalla mu ne ko ah dañuy tabax jàkka chèvre ne ko da nga naan niig buñ tabax tuddee ko yàlla waaye yàlla ñaari niig laa xam yum tabax <laughs> dégg chèvre te niig yooyu di ko ci defal moo ko gënal biirub julli di ko jox mu lekk ndax foofu rek la bind ci nit def ko am pax def ko mbuus te defu ci dara buy ñëw xanaa mooy defal leen ma ci nee de len joxe ñam di dundale di dimbilé nee bi bo gisé yalla def ko am pax Cheikh ibrahim ne daa bëgg ngeen def na fofu day kërëma ndax moko tabax <laughs> def ko muy ëkkër kër daan ne moo joxe ñam na ngeen ci gor lu dom deng dan ne bi ci des moy xolub julit bu laap nee na foofu néegu yàlla la boo ko serelee gis yàlla boo ko teddalee gis yàlla boo ko boo ko merloo gis yàlla nee na ñaar yooyu laa xam ci néegub yàlla xolub jullit bu sell ak biirub doomu aadama ne ñaari néegu yooyu laa gis mu tabax ko nee leen nag dañoo defar ab tabax rek tuddee ko yàlla ndax léeg-léeg nga gis jàkk joo xam ne لا القرآن وحرك الذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على تقوى من أول يوم أخاف أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين sëñ Maxtaar maa ngi jégalu. Mm. ngir jëmmi maam Cheikh Ibrahima. Mm. daa am loo xam ne bi ma nekkee Bologna Italie. Mm-hmm. damaa ànd ak xaadim ba sët suñ Musaa Ka. waaw nu toogandoo ca Bologne foofu santakata Bolognaise. waaw may diglu sa waxtaan ba. nga tàbbi ci diggante sëñ Fallou Mbacké ak maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw waaw maam diggante sëñ Fallou Mbacké ak maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. laa bëggoon nga dimbali ma ki jëmmi sëñ Tuubaa rek. am loo ma ci sarax donte ne ñaari minute la ma yóbbaale ko. waaw waaw <laughs> diggante sëñ Fallou waaw xam nga am na waaw waaw xam naa xataay bi. danañ ci wax waaw dinaa la ci danañ ci kii bu soobee yàlla am ñu ci kii ndax diggante Cheikh Ibra ak sëñ Fallou moom. Mhm. gone mënu ko xam. mag ñi sax xamuñu nu mu ndax ëpp na déggug nit sëñ Fallou ak Cheikh Ibra laaw. Mhm. ñi dañoo defe ne danoo xaritoo ni waaye fa ñu àndee sori na. Mhm. Cheikh Ibra nee na doomi sëñ Bamba yëpp ba ma leen di xam nit ñi xamuñu sëñ Bamba ba di leen xam. Cheikh Abdou borom dër bi nee na. Hmm. ànd na mag seex Ibrahima ñetti ay ñetti yoon jamono moo ko wax ku ma ko wax de. Cheikh Abdoulaye ne Cheikh Ibrahima mii ngeen di gis. Hmm. ànd na maa mag moom ñetti yoon jamono. Hmm. may wut bàyyi bu mat bàyyi. su ma wëri góor yàlla yi du ma gis ku ma mën a jur. muy wut sëriñ bu mat sëriñ du ko am nu bokk gisee dellu. nee na ba ci sëñ Bamba lañ daje mu mat ma bàyyi sëkk mat ko sëriñ. ne nu soog fee daje ne looloo ma dajaleeg sëñ Abdoulahi ci sëñ Tuubaa doomi sëñ bi kenn ku ci nekk baleen Cheikh Ibra di xam nit ñi xamuñu sëñ bi bay xam ndax sëñ bi doomam dana am alhamdulilah kenn koo ci tudd am na fu mu jaar ak moom foo xam ne dana weesu na déggub nit sëñ Fallou nag da cee rew moom شيخ يبرم مودون بغ بغم سيرن شيخ مباي يارام نتلي نانو نينا سيرن بي اغنا سي جيل نداب جوخ سيرن جوخ شيخ ابراهيم نيكو دمال بوكك سيرن فالو سيرن فالو دمال nga بوكك سا شيخ دم لين جين خيوول لول نينا بانو نيوي مو تانخ راخاسمي جوخما مانكو ايتيو مونوما ديدت xewlul ba nopp ne mun ne ko déggoo li sëñ bi wax xoolal Cheikh Ibrahima ni bu déggee sëñ bi Cheikh Ibrahima ne ko lu sëñ bi wax mu ne ko def ne nan xewlu mu ne ko waaye waxul lu bokk <laughs> yaa xanaa xamoon mbërëm moo fi rëy bañ naan la kaar Cheikh Ibrahima Fall ngay laaj pexe Cheikh Ibrahima sëñ Touba daan digal nit dara digal ko ko kooku du fexe ba xam lim ko wax xam nga loolu la mag ñuy wax bul dem di ko laaj de duy teggin demal nga wax ko Cheikh mu wax la li wax te fekkewul bi ñu la koy wax nga ñëw mu ne ah dane nga def nangam de nga xam ne mboolem ndigal yi sëñ bi digal nit ñi sax da koy dégg fu mu mas a toll lu sëñ Tuubaa séq nit xam na ko wallaahi waaw lu sëñ Tuubaa séq nit Cheikh xam na ko fi mu toog. yaa ngi dégg nee na nee na nee na nee na sëñ di di di xéwlu ba mu yàgg mu ne ko sëñ Cheikh Mbaye yaara mën na ko nettal ne ko waaw yow ba bàyyi ba sëñ Touba mii ba ngeen dalee ànd ak léegi lan moo soppi ko ci moom Cheikh Ibrahima ne ko ah man ab dof laa su ma la waxee koo dem nettali ko danaan la dof boobu Cheikh Ibrahima ne ko waaw waaye man eh, sëñ Fallou ne ko waaye man nga tontu ma tontul nit rek <laughs> mu ngi ko doon bëgg kii di nee na Cheikh Ibrahima ne ko xam nga téereem boobu ñuy wax Masaalikul Jinaana sëñ Fallou ne ko waaw mu ne ko kooku du téere sëñ Touba la jëmmam la. waaw masaalik boo ko tàmbalee di nga xam ne fiq ak yooyu lay jàngale waaye jàng si jëmmi sëñ Tuubaa lay jàngale li mu raw nit ñi tey ak ëllëg ak ginnaaw suba déggoo sëñ Khalifa wax na léegi ne am na université yoo xam ne fi ne ci Europe jël nañu masalik boole ko ci seen njàngale léegi te Cheikh Ibra noonu na masalik muy sëñ Tuubaa ndax léeg-léeg mu jékki-jékki di ubbi masalik ngay séntu fiq mu ne la is rubba ma uri fatan mu waqara maa xaaba aman xabluhu wa asura góor yàlla yi li ñuy baax baax danañ jaar fi barab xool xool duñu gis dara benn waaye ñëw ne mi ngi nii ñu naan ko foo jaar ba gis ko xam nga loolu du fiq mhm. loolu du fiq de daan ne daan ne wis wisal mooy jëkkat mooy jëkk waame waaye nag njariñ ci waame la ne nekkul ci wis wisal mhm. xanaa loolu du fiq de boobu boppam lay wax nee na mu daal di mu daal di ne ko lenn de jaaxal na ma bu jëkk di daawul muur bopp bi ànd nañ ay yoon du muur bopp léegi nag yoon wi daal laa ñëw fekk muy muur bët yi rek ngay gis sëñ Fallu laaj ko loolu Cheikh Ibra wax ko loolu sëñ Cheikh Mbaye Yaar ko nettali nee na nee na ba sëñ Fallu de delloo sëñ Touba da ko ne noo def ak sa Baye Ibra Fall mu ne ko ah, moom da dafa ne bokkunu de mun ne ko lum la wax mu ne ko def ne yow waxoonu bokk danga nga ne nan xéewul mu ne ci Ibra Fallum démb mi mooy mu tey mi rek ndek digg na liñ doon wax moom kon ñooñu fa ñu ànd yàgg na de mm-hmm. waaw sëñ Fallou nag boo ko dee rabat nii ci Cheikh mm. sëñ aboo mii rek doy na ci misaal sëñ Abo mm. sëkk misaal ci ñu xam ne Cheikh moom moom sax am na lu wax ci toogaayam bi ci kër sëñ Fallou waaye loolu kenn du ko wax ci ci ci ci ci rajo liggéeyu sëñ Mourou Moustapha ci sëñ Fallou moo tax mu doon xalifa sëñ Fallou loolu foofu laa yem daal ah hmm. waaw sëñ bi nee na doy na foofu doy naa yem ndax am na ci lool kenn du ci àgg léeg-léeg nit wax ñu ne la yaa ngi xolli gunóor de te gunóor benn dara la wóorul waaw waaw kon nag nan góorgóorlu ñun ñëpp te xam ne lu dul doy loo ci am mu doy Cheikh Ibra nag yàgg naa leen wax te dinaa leen ko waxaat nee na lii ma woote muy yoonu bayfal ku ci tabbi tabbi nga ci baax te baax bon nekkul ca wàlla moom moo garanti ne ku ko topp tabbi nga ci baax waaw moo tax sëñ Mor Mbaye Cissé dama ko nuyu mu ne ma xanaa Baye Fall nga mu ne ko waaw mu ne ma ah, xam nga nu may xam ne Baye la ma ne ko déedéet mu ne ma man gis naa ko ma fi nuyu bu ma xoolee jébbi ndekete moom loolu da koy xam dañ ciy bind ki jéggal nañ ko ba noppi su ma ko laajee rek mu na ma kër Cheikh Ibrahima laa bokk ma ko wax de hmm. daan ne ku ma gis ñu ne dinañu ko jéggal ba ma ko laajee mu ne ci murit gi la loolu wutale Baye Fall ak murit am nga kuñ jéggal ba noppi ku bëgg a nekk fii naan yaa ngi lijjanti mbiram foo jëm yow te ngaa fexe ba danañ la jéggal ji wér yow hmm. te Cheikh Ibrahima moom njiggalu ñu ko topp lijjanti na ko bu yàgg loolu nag taxul ñu ne comme neex def loola neex de waxuñu loolu de kuñ jéggal ba noppi yaa war a gën a wóor ñëpp yaa war a gën a jub ñëpp ba ñu xam ne jëmmi kuñ jéggal nga waaw waaw dangaa war a wane ne jéggal nañ la waaw kon nag yëf yi xat na te xam naa ne sëñ Mor daa war a ñëw te yëf yi di guddi na waaye ñoo ngi ñaanal ñëpp di sakku ci ñepp ñaan te xam ne lu dul doy lo ci am mu doy Cheikh Ibra nak nit dana tok fi di jang alquran ab bay falam romb la di jëfé alquran ji nga naan té mo jang mo gën lii def te fekk mom yow li ngay jang dañ la ko dañ bëggoon nga jëfé ko yow jëfé woko ya nga jang mom mu koy jëfe Modou tafal netti na len ko ki ñewon di jang ki ñewon di jang nit ñi liggéey barabu Cheikh ibrahim muy jàng sëñ mu tan di ko xool rek mu defé né sëñ bi daf ko yëm ndax gaay ku ci jang ñaari téré rek defé né yëm nga ñëpp dédé du nonu sëñ mu demante ko yow da nga may jaaxal yow da nga ñew fi ñuy jënde ngay ñaan <laughs> fekk ñëpp di jënd marchandise maa ngi tege newoo ñaata la ngay ñaan maa bëgg nga dugg ci marché rek koo romb ne ko may ma ci li ngay jaay dañuy wujj génne la marché bi marchandise moom kenn du ko maye jaay rek lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna Cheikh Ibra daa xam ne lu wér loo yóbbu ci sa kanamu borom da koy jënd saxabatu rasul yu jëkk yi lépp dañ koo jënd léegi nag la tàmbali wëttu koppati comme ni ma koy waxee Dari wut sa mbassin bu baax tok ne kok bu yëgal say tank nan ne diine ji ñun ño tax mu aksi fi ban aksi. la hawla wala quwwata illa billah waxon na len ko sarago sa naa leen diini li andi fi moy li Cheikh Ibra ne waaye diini ju nopi nga toiletu wut sa mbaxane mu rafet wut sa kurus tok di wax rek andi andiwul diini fi mu ne de diini jënd la laaj te Cheikh Ibrahima jàngal nañu ni ñuy jënde kon ku bëgg boo teewee sa kanam borom am sa yëfi bopp yow moom jëndal te Cheikh Ibrahima wan nañu kii je kii kii yoru marchandise bi wan ni ñuy jënd kon ñun ñépp nañ fexe ba xam ne jënd moo wóor waaw am na bis ma dégg sëñ Cheikh Fall naa nit gis nga waa ji ñu ne waa mu ne kii daal ku ma jaaxal la ñu ne ko lu tax mu ne moom daal dafa ma jaaxal moom daa fexe ba bokk te bokkul woon te kenn xamul li may wax génn góor ne ko ah kon defal fexe ba bokk rek a wóor mu ne ko moom rek a wóor da xam nooy bokkee rek yëf yii moom dangay ngay fexe ba bokk xam nooy bokkee rek bokk <laughs> waaw yëfi sëñ yi dafa yaatu boo xamee nooy bokke da bokk kon ñun ñëpp nañ fexe ba bokk. te bokk moom melo la ak doxin ak jëfin kon jërigeen jëf nga yemale ko foofu di ñaan yàlla mu boole ñu dimbali ñun ñëpp saahir ak baatin te nangul ni ci barki sëriñ bi ak Cheikh Ibra waaw sëñ Xalifa nag mu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax waaw waaw waaw waaw kàddu yi waaw kon ñu déglu sëñ xalifa Fall waaw. bëgg naa ngeen ngeen ko seet. seen waxtaan. fekk naa ko mu ne ma. si gisaa jéem de seen yow da ko woo da ni ngeen di toogee ci kanam sëñ bi. nga Fall noonu la koy laajaat. Mm-hmm. mu ko doon sukk. mel ni julli bay taay seen woo mm-hmm. mm-hmm. bu la yónnee nag nooy def mu gaa mun faal xam na boobu mën ko ba da ngay daw ba daan ci géej waaw mm-hmm. mooy bu la mu indiwu addi addi li faal xanaa ko joxe mooy sawar da lay gane dugg sa kër nga daw génn kër nga bàyyi ko moom loolu moom du àgguñu leen. laa ilaaha illallaah est mu jeex. waaw waaw laa ilaaha illallaah. waaye mhm, mhm. Ah, waaw kay mhm. waaw ma dem maa ngi jëf. waaw jërëjëf Fall. jërëjëfati lu waaw lu leer la kon la jërëjëf. jëf dégg wax ñun ñëpp nañ jàpp ñetti wax yooyu tënk na liñ fi wax lepp li señ dam atta wax té señ bi wax ko té señ euh, né Cheikh ya jenn la ko Cheikh Ibra wax li ni nako ñëpp dégg man dé man ko koy dégg waaw <laughs> jëri jëf jëri gën jëf jazakumullahu khairan xayran borom la ilaha